waxtaanee comme ni ko defee woon ci biir semaine bi rek euh, les législatives les prétendants en lice naka la ñu mën a jàngateeg euh, mouvement yi nga xamante ne wala parti politique yi nga xamante ne judd nañ lépp rek pour waajal li nga xamante ne mooy législative yi. waaw xam nga doon moment yu am solo ci askan wi. ak doxu réew mi. ci biir loolu nag am na ku ñuy wax président Diomaye. moom bi mu xoolee ne liggéeyam mi ngi koy am gàllankoor te ñi koy gàllankoor mooy ñu ngi ko séqal ci wàllu député yi mhm. te am ànduñu ak moom mhm. mu ne naa ko dissoudre assemblée nationale sañ-sañam na nag yoon mhm. may na ko waaye daf la daf la tënk pour nga dissoudre ko il faut mu am ñaari at donc bi ñu ci àggee ñaari at yi le 12 septembre mu dissoudre ko bi mu ko dissoudre yoon aussi daf ko tënk ne ko na nga organiser fixer datu élection yi. Mhm. mu fixer datu élection yi 17 novembre. 2024. Mhm. mënoon na ko def tamit après 17 novembre parce que desoon na aussi presque lu mat weer ci app bi ñu ko matal diggante 60 ak 90 jours. Mhm. moom moo tàmm foofu xam naa compte aussi des circonstances. ak. li des ci at bi bareetul. Mhm. et war na fexe ba installer leen pour au moins fin décembre. Mhm. mu mën a voter budget. Mhm. léegi nag enjeu bi mooy lan. mooy ñi yor réew mi. bu ñu sañoon dañu am ce qu'on appelle une majorité qualifiée maanaam majorité boo xam ne dina leen permettre lu ñu bëgg jàllale. ñu jàllale ko te ñëpp biir nañu ne ñu am na ay réformes yu bari yu ñu bëgg a def. am na ay lois yu aussi ñu bëgg a changer donc yooyu bu dajaloo. Hmm. day baax ci premier ministre bi. Hmm. Ousmane Sonko mu am majorité boo xam ne dina mën a doxal di yoon wi ko Diomaye tracé ci loolu lañ doon léegi nag bu loolu amee ku nag day fëgg sa dënn ne man maa mën na ma tànn tànn wi nan lay demee dangay bokk ci parti. Hmm. wala nga nokk candidature indépendante mais seetlu nañ ne sunu réew dañoo baaxoo di dajaloo ci lu ñu tuddee coalition maanaam ay parti ay mouvement dajaloo mhm. ñu tuddee seen bopp benn tur loolu lañu fa mais cette fois ci nag duñu gis euh, ku mel ni Ousmane Sonko mi yor parti Pastef def ce qu'on appelle une rupture de stratégie électorale parce que moom bi mu fi nekkee ba léegi di politique ci ay coalition la nekk mhm. coalition moo ko indi au pouvoir mais bi mu ñëwee nag boo war a dem député mu ne déet gars yi il faut ñu soppi doxalin nan lañ koy soppee mooy dama damay def damay def euh, list bi ci bannière Pastef suñu parti du tere nag dinaa am ñu ma ci dugal ñoo xam ne bokk ñu sama parti mais nangu nañ li may def mm-hmm. ci biir loolu am na certainement ñu mu ci jóg léegi neen lu ko tax a jóg même bu ko waxul ñu jàpp nañ ne dafa bëggoon sécuriser électorat que kii député bi parce que boo interroger histoire très souvent mhm. gars yi dañuy duggandoo assemblée nationale mais duñ fa génnandoo même couleur yi da ngay jékki kii ne la député non inscrit la mhm. yow ci kuréel bii nga ñëwee nga toog ba ne nga ne député non inscrit la ànd toog ñoom te yaa ngi bénéficier avantage mhm. salaire ba dañul yaa ngi siégé yaa ngi wax lu la neex am immunité parlementaire léegi nag ñeneen yi aussi boo xoolee récemment intercoalition mhm. bi ñëwee premier jour lañ tàggaloo te ñoom def nañ topp def une expérience intéressante ba ñëpp di ko coow di mhm. ci desoon kay mooy préserver ay expérience fexe ba am majorité assemblée nationale imposé wu ngeen am premier ministre mais malheureusement biñ jegee jour boobu lañ raté le train de l'histoire mhm. donc yooyu yëpp nag les leçons du passé sont faites pour être retenues kon genre maître Moussa bi nga xamante ne dafa ŋàññ lu ni mel mën nañ nekk Sonko dafa ci yoonam la nekk protéger li mu. waaw Sonko ci yoonam la nekk. Mhm. léegi kii bu ko neexee mu adhéré bu ko neexee mu adhéré mhm. mais man li ma intéressé ci ci li mu def mooy quand on n'est pas d'accord il faut savoir dire non. loolu man loolu laa apprécier ci problème d'accord mais nag dafa am contradiction ci démarche parce que tu dis après nga ne yaa ngi toujours coalition kii loolu mënta ne mhm. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire soit yaa ngi ci biir wala nekkoo ci waaye maa ngi ci kii nu mu cere ji duma ci lekk mais jox leen ma ci ñeex yi <laughs> loolu day compliqué pour les esprits simples comme le mien mhm. léegi nag bu loolu soo ñu ngi koy sécuriser léegi nag bu ko see am na nag ñeneen ñu taxaw jàmmaar la moom xamal ko ne sëñ bi ñun député yi dañoo bëgg bu ñu amul tamit cohabitation ñu créer équilibre loo xam ne lu la neex ngay def lu la neex ngay wax. Mhm. ñoom loolu lañu ñu ci biir loolu nag ñu dajaloo am na coalition bu ñuy wax euh, takku wàllu Sénégal kooku nag dafa am ñu ñu ca nekk ay ñi ko jiite. Mhm. ak ñi ko ŋànk ku ñuy wax Macky ci la bokk. mooy président de la République pendant douze ans yàlla dogal na buggoon na troisième mandat <laughs> mais bi mu xoolee ne askan wi ànduñu ci ak pression internationale mu dellu ginnaaw ak kan Karim Wade moom mooy koo xam ne neuf ans yi nii jaaru ci réew mi jaaru ci réew mi de uh-huh. di gérer parti am à distance par procuration uh-huh. di gérer te gis nga waa PDS ku leen gën a gore amul ci Sénégal ak ñu mën a muñ. loolu loolu mooy gore bi ko mën a parce que waa ju nekk fële. Ah. xamu leen kenn lay ñëw te dafa mel ni apparemment pareegul pour ñëw. di leen wax loolu def loolu lii def loolu lii ngeen koy topp di ko yaakaar am nañu commencé perdre loolu na leen ñaari yoon ay perdre sax waxuma perdre mhm. mais dañoo participer wu ci élection yi ndax ndax kooku mhm. mais teru ba léegi ñu ngi ngànk di wax Karim Wade Karim Wade ainsi de suite donc mais c'est léegi nag loolu moo indi. Mhm. parti bi divisé wu PDS. léegi am na ñoo xam ne dem nañu seen bopp tuddee nañu seen bopp coalition soppi. ñii sax waxoon nañ doon nañ menacé di wax bi soo jëlee suñu emblème wala suñu symbole dañ lay porter plainte. mais on verra léegi amaan na beneen coalition bu tuddu sàmm sa kàddu léegi boobu ku ko jiitee tête de bi mooy Barthélemy Diaz. léegi mu am aussi beneen coalition bu tudd jàmm ak njariñ Amadou Ba moo ko jiite amaan na nag yeneen ak yeneen mënoo leen ay coalition teranga mhm. ànd liggéey ak dañoo bari presque quarante sept listes lañ donc dañoo bari ñu mhm. leen mais li ci ëpp solo daal mooy coalition yooyu moo wax mhm. ñooñu foofu la jeu bi nekk marché bi foofu la nekk li xale yi wax bi foofu lañ koy joué li xale yi wax game bi génn bi foofu la nekk. Mhm. diggante coalition Pastef. Mhm. bon Pastef plutôt. coalition Amadou Ba coalition. Macky ak Karim. coalition Barthélemy Dias ak Khalifa ak ñoom Bougane. Mhm. foofu la génn bi nag boo xoolee configuration bi. ñële on peut dire am nañ une longueur d'avance ci ñoom waa Pastef parce que biñ leen falee yàggul. jusqu'à présent dañuy bénéficier ce qu'on appelle un vent de sympathie vent boobu day continuer à souffler defee une bonne communication ak gérer les préoccupations de Sénégal mën nañu am lu bëri ñeneen ñi Macky Sall ak Karim Wade ak Idrissa ils su ils jouent leur survie dañoo bëgg a dund ci wàllu politique bëgguñu ko leen rey politiquement lu ñoom sax député bi moo leen ñoom mais dañu bëgg appareil boo xam ne ils pourront exister après mhm. mais du député que parce que Macky weesu na nekk député déjà liggéey bi mu sumb rek doy na ko maanaam quatre pays mhm. di liggéeyal Macron loolu rek du liggéey la mhm. ak am na lu ñu ko nommé fan yi encore loolu tamit liggéey la donc day def ni c'est pour le symbole la mu nekk tête de liste mais soxlawu ko Karim Wade aussi koo xam ne pour mu ñëw problème kooku moom tamit soxlawul nekk député Idrissa Seck tam weesu na député même ñooñu donc ça veut dire que dañuy jouer pour am lu ñu téye parce que ay politiciens lañ politique mooy seen àddina. Mhm. léegi nag il faut ñu exister à la différence de la vie courante xam nga dans la vie courante on meurt une seule fois mais politique ti peux mourir et renaître loolu mooy beneen mu des nag beneen coalition Barth ak ñoom leur caractéristique moom c'est des jeunes. ay jeunes lañu quoi boo gisee Barth relativement. nga gis Déthié Fall nga gis euh, Pape Djibril Fall nga gis Thierno Bocoum. Mhm. nga gis ak kan. Bougane Bougane donc ak Anta Babacar Ngom donc ñooñu ñëpp ay jeunes lañu donc donc il y a des chances pour ñoom. Mhm. mais en tout cas malheureusement nag parti coalition yi benn problème la ñoom ñi ko composé par exemple coalition yi dañ ko rejeté dañoo rejeté Macky ak nitam récemment. Ah. yàggul pour Sénégal yi delluwaat di leen jox yenn kii dina ma jaaxal trop Amadou Ba aussi même chose. boo gisee coalition ñoom Bart nag am nañu tur mais amuñu mbooloo am nañu tur quoi. Mm. Thierno Bocoum am na tur amul mbooloo. Pape Djibril am na tur amul mbooloo. Bougane am na une présence médiatique mais. Mm. woote na fii élection locale gañewul donc ça veut que ñoo ñëpp des na des na lu bari parti moo fa tane te parti peut-être c'est circonscrit quelque part quoi Dakar donc yooyu yëpp yooyu yëpp day entrer en jeu xëy mm-hmm. na mu des l'offre bi ngay jox population bi li ngay wax ak discours bi nga leen di tenir mm-hmm. ñoom nan lañ koy téye ak yaakaar ji ñuy teg ci yow loolu moom mi ngi ci buñ ci yàlla bàyyi dimanche 17 novembre dina mhm. leer nañ. mais doyen balaa may dem ci Moussa euh, nu ngi koy waxatee te Bougane Gueye Dany ak jeu bi mu nekk di jouer nii est-ce que moom bëggul imposer boppam wala imposer sénégalais moom mooy chef de l'opposition. Oh, bon chef de l'opposition man li ma jàpp mooy. parce que ki ñu naan chef de l'opposition dégguñu ko gisuñu ko. li ma jàpp mooy. Mhm. dafa bëgg a créer une dualité. entre moom ak ak Sonko xamal la mhm. quand tu veux être célèbre ni Abdoulaye Wade attaque un célèbre au-delà de ça mhm. xool xooloo seetlu woon Ousmane Sonko mhm. lu ko dal mu ne Macky lu ko dal mu ne Macky Sall léegi dem na ba créer benn dualité ba léegi Macky Sall moo doonoon alter ego loolu c'est politique quoi li muy def nii lool la fu ñu tuddee Bougane tudd fu ñu tuddee Macky mu tuddee Sonko. Mhm. ainsi Sonko il n'attaque que Macky amul leneen léegi nag loolu moo def. kii yooyu bëgg tam ah, certainement. stratégie boobu la nekk. Mhm. mais chef de l'opposition non seulement il n'est jamais allé à l' à une élection boole kooku aussi on ne sait pas ce qu'il pèse te wax dëgg yàlla dese na ko lu bari pour mu imposer wu quand même. d'accord Amadou malheureusement nag ki waroon xëccu chef de l'opposition hmm. moom il est trop sage pour hmm. être chef de l'opposition parce qu'il ne s'oppose pas malheureusement donc euh, Moussa Seye nee na ñu bàyyi gars yi ñu liggéey. waaw <laughs> ah, mais mais l'avenir nous dira vraiment parce que moom it boobu ba tey kenn dégg ko xëy na dina mës a génn bés. musa Sène par rapport ak législative yi nu ko doyen expliquer léegi ah, gis nañ mouvement yu bees yaa ngi judd mais ni am na doyen point bu mu bu mu wax léegi boobu laa bëgg surtout nga ñëw fa jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñoo waxuma ñu anciens yi mais ñu mel ni ñoom Jean na Bocoum ñoom Anta Babacar jeunesse bi nga xamante ne fu aussi dañoo taxaw fas yéene jàmmaarloo wala peut-être jàmmaarloo sax xëy na moo bi rëy na fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef ci législative yi naka nga mën a analyser lu ni mel. bon loolu li ma ci jàngal rek bon c'est vrai que wax nga dëgg ah, parce que élection yi nii nii gis nañ ne bu baax bon jeunesse bi dañu ci taxaw am taxawaay bu fës taxawaay bu am doole loolu nag bon expliquer ko lu yomb la ah parce que instant bi politique u Sénégal dafa nekk di dund lu ñuy wax alternance générationnelle boo xoolee alternance générationnelle moo commencé di dugg ci politique Sénégal yi yi passé présidentielle bi wane na ko on a un président boo xam ne amagul 45 ans kon loolu rek wane na ne ñun Sénégal instant bii nii am na ñoo xam ne politique catégorie de politicien boo xam ne seen seen cycle de vie jeex na ko ñun dañu war a dem loolu mooy expliquer jeunes yu bëri dugg ci langue politique di fës ci trop boo xoolee sa jeunes yi ñuy commencé sax di prendre le pas sur euh, les anciens politiciens yi nga xam ne ñoom lañ xamoon les politiciens traditionnels ku ci mel ni Idrissa Seck Amadou Ba Macky Sall ñeneen ak ñeneen mm-hmm. bon loolu nag boo ñi ne au pouvoir ay jeunes lañ. Mhm. mooy le duo Diomaye Sonko Diomaye jeune la Ousmane Sonko bi nekk son premier ministre jeune la. Mhm. Euh, pour ñooñu noonu ñu am ay opposants yoo xam ne dinañ nekk à la hauteur ay jeune lañ mun a doon parce que comme ni ko doyen waxee léegi Amadou Ba est trop sage pour être opposant Idrissa Seck mënul opposé ak jeunes yi nii moo tax boo xoolee am na ñu bëgg sax créer dualité entre liste sàmm sa kàddu bi nga xam ne Barthélémy Diaz mooy tëdd liste bi ak liste ñaar ci diggante ñaar ñooñu noonu. Mhm. tempérament yi xaw na nuroo parce que Ousmane Sonko c'est un politicien très très teigneux Barthélémy Dias tam tempérament boobu la am quoi ñoom seen dualité dina nekk dualité bu neex ci wàllu politique. Mhm. loolu nag bon boo ko xoolee yëpp da comprendre ne. am na ñoo xam ne daal man su ma nekkoon à leur place fi mu nekk nii dañuy retiré def retrait par rapport à la vie politique du Sénégal mm-hmm. parce que fi mu nekk nii jeunes yi seen air moom moo soufflé. ku ci mel ni ñan exemple. bon ku ci mel ni ñoom Amadou Ba ñoom Idrissa Seck ñoom Macky Sall c'est-à-dire ñooñu jeexal nañ ñooñu moom vraiment politiciens yooyu noonu pare nañ. Mm-hmm. parce que fi mu nekk Sénégal boo xoolee da ngay xam ne. on aspire à autre chose quoi li ñu gis mooy une alternance générationnelle politicien traditionnel yi dem parce que ñoom nekk nañ fi vrai depuis des décennies et des décennies changement amul dara amul dara amul politique ñu essayer jeunes yi le développement ne peut être porté que par la, par jeunesse. gis nga buñ kii on ne pas faire du neuf avec du vieux comme on dit. vieux mm-hmm. ñoom def nañ seen kii ba pare def nañ seen temps ils ont fait leur temps fi mu nekk nii. Mm-hmm. le temps leur de la jeunesse mm-hmm. l'heure des jeunes politiciens au Sénégal a sonné moo tax nga boo seetoo. sàmm kàddu mu ngi fee ne ay jeunes ñoo ko porté Pastef moom pratiquement noonu la mos a demee depuis sa création da xam ne parti bi moom c' est un parti politique essentiellement relativement jeune. Mm-hmm. waaw kon boo boo gisee kon bu benn coalition de l' autre côté nga gis fa ay jeunes dañoo bëgg ñoom tam aussi xam ne ñii ay jeunes suñuy morom ñoo fi nekk. Mm-hmm. c' est yoon la ñu taxaw jàkkaarloog ñoo xam ne ñu ñoo bokk génération parce que mënoo ñëw jël nag ay koo xam ne ay ñoom 40 ans 45 ans bu leen a tegal ay vieux de 60 ans 65 ans loolu noonu. loolu noonu amul benn logique amul benn cohérence loolu mooy créer mooy expliquer. Mm-hmm. ñu gis tey jeunes yu bëri dugg ci langue langue gi créer seen i parti pour opposer wu. Mm-hmm. merci beaucoup Moussa Sène euh, dañu daal di jóge.